bisimilahi rahmaan rahim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci seydinaa muhammad sangu-sang yi gërëm suñu ñaari waajur ñuy nuyu auditeurs yeeg auditrices yépp di leen ñaanal fépp foo ay nekk jàmm wér ak wérle sutura ak teraanga mucc ak muccale barke seydinaa muhammad sallallahu alayhi tey nag ñuy waxtaan ci thème xamante ne tem bu soxal njaboot képp kuy waajur képp kuy jigéen tem boobu soxal na la muy vacances ak xale muy vacances ak tout tànk ci zaayir mu nekk loo xamante ne dañu gis ne jamonoy année scolaire bu école tëjee ñu nekk ci vacance xale yi dañuy yaakaar ne libre nañu dañuy yaakaar ne war nañoo mën a dem fu leen neex muy jigéen ka muy góor gi kenn ku ci nekk boo yeewoo rek yow yaakaar nga ne da war a nekk ci say ci say we ba waxtu wu la neexee nga doog duggaat seen kër amaan na sax sa waajur wu jigéen liggéey ba ca kër ga dina ko yitteel ba nga xam ne du la nemmeeku ba xam ci lan nga nekk te wax dëgg yàlla loolu taxul ñu naan vacances xale bu jàngee ba école tëj dafa waroon a xëy dem ca alxuraan ba war a xëy dimbali yaayam bu dee jigéen ca mbale ma ca raxas bool ma ca doxan yónnent ba bu dee xale bu góor mu xool la baayam doon def bu fekkee baayam dafa nekk ci atelier ba bu xëyee war na koo mën a jàpp ca loxo yóbbu ko ca wetam ca atelier ba bu waxtu atelier ba jeexee mu yóbbu ko ca alxuraan ba mu nafar fa dara ndax alxuraan dafa am lu muy def ci doomu aadama ndax alxuraan mooy waxi dëgg waxi dëgg nag defe nañ ne bu jiitoo ci dënnu xale ah xale boobu dana nekk xale bu am jom dana nekk xale bu am ngor dana nekk xale bu am personnalité ëllëg moo tax ba bu ñu nee vacances rek école tëj sa doom war a nekk ci mbedd mi déedéet boo dee soxna bu sa doom jógee da koy jox bale boo ko joxee bale ba noppi bam mu bale ba mu set bu laalee ndox sang yaramam ba mu set aha nga jël bang teg ko ca sawet ca waañ wa boo ko tegee ca sawet sa waañ wa diggante bi ngay togg di waxtaanaaleeg moom lu dugg ci noppam ndax xalekat am na yoo xam ne bu ko foree ci nopp da koy màggaalee waaye damaa gis na jamono léegi ji lu bari dañ koo bàyyi xëj na sax yittey jamono ji la ak metti metti waaye ba tey rek ñu war a sóoraale na suñ digganteek suñu borom metti metti xaju ci ndax lépp suñu borom la yàlla mi ñuy dimbali ñu nekk ñun ñee ay tout tànk ba mu xëy def ñu ay mère de famille ñuy dem a dem a dem ba am ay tout tànk mu am la nga xam ne ñun suñu waajur loolu lañu defoon ci ñun ñun defe nañ ne war nañ ko mën a transmettre nag suñuy doom man de dama daan fàttaliku bu école tëjaan dañu nekkoon ak suñuy waajur sama maam ak sama yaay waaye ñoom ni ñu yaree woon dañ daan xëy ñi mën a bale bale ji ñi war a raxas bool raxasi bool ñu war a jël ruq-ruqaat ci kër gi fat bagaas yi def ko man mi nga xam ne yàlla suñ borom dafa dogaloon may soox nekk handicapé su ma xëyaan sama maam day dajale bool yi rootal ma ndoxu raxas ak ndoxu yelandi tegal ma bang ndax toog laa ma ne woon su ko defee ma raxas bool yi ba mu set samay mag ña nga ca bale ba ñii ña ngay ca defar lal yi ak ruq-ruqaatu saal bi ñun loolu lañ daan def bu ñu ci loolu àndaan dem jàngi alxuraan dañ daan jéggi tali rek ci koñ bi fa la sëriñ daara bi nekkoon nga xamante ne bu xale yëpp toogaan ci koñ bi di jàng ku sa waaju dana gis na sama doom mi ngi ci daara ji booba jamono daawuñ jël kër dugal ci sëriñ daara dañ daan teg ci tali bi lañ daan toog ci booru tali bi noonu ci koñ bi place boo xam ne daal jege woon na jàkk ji waaw su ko defee nag xale yëpp nekkaan di jàng ku sa waajur daan dem marché danga romb sa doom xam ne sa doom a ngi ci daara ji di jàng bu ñu wàccaan it xamuñu li xew tey wàcc taxawaalu ànd ak say xarit dem ba ca àngal bee dem ba ca àngal bële boo ca jógee taxaw fu nekk wax ba mel ni sa waajur yàkkamti wala ñemewuñu woon loolu boobu xale ñemewul ni xale ñemee tey bu ñu wàccaan ca daara ja kenn ku ci nekk yaakaar nga ne boo yéexee dox ba dem ci sa kër sax ah boo yeggee nag dana metti ndax lu mu bon bon daañ la eh, corriger daañ la yar yar bu gaaw boo xamante ne wàcc ñibbi rek ci xaj waaye wàcc doxantu xaju ja ndax xale yi ñuy bàyyi ñuy rëcc rëccee ci angle yi mooy waral tey lu nekk di nga gis ne sa yaay dina la yàkkamti woo la sax waaye dinga gunge sa ñaari xarit taxaw ak ñoom ci angle bi lu yàgg ba mel ni sa yaay woowu la soxlawu la boobu ñemewuñu ko danga daan dellu kër ga bu gaaw boo leen delloo finition añ bi sa yaay nga ca nga jàpp ca lal teg bang indi ndox raxasu indi kuddu indi ndoxu naan ba pare daal di toog nag rek le doo wàcc nekk ci kër gi di yuuxu doo wàcc nekk ci kër gi di dugg ci loo warta dugg te pourtant xale da daan fo boobu jamono daan nañu fo amoon nañ distraction waaye dañ koo réglé woon melul ni tey nga xam ne xale yi seen distraction solu la dox yi ngay gis xale bu am 10 ans da gis xale bu am 13 ans nekk ci loo xamante ne daanaka yëfi mag la boobu jamono nag ñun ñemewuñu ko woon réglé amoon nañu yar amoon nañu teggin amoon ak taalibe ndax kenn ku ci ne danga daan xool la sa yaay di def su ko defee boo xoolee sa yaay rek bu sonnee da nga xam bu sonnul da nga xam su ko defee boo xàmmee rek yaa ngay taxawu sa yaay ne ca wetam di ko épauler di ko épauler ba du yëg metti metti jamono dafa fekk ne sax euh, comme vacances ak xale la wax doo jël wax ji rek focaliser ko ci yow waaye kon dinañu joxe ay anecdote yoo xamante ne euh, day xaw a doy day day émouvant parce que kenn ku ci nekk ci àdduna dund nga ak sa waajur loo xamante ne da nga xàmmee rek gis ko mu metti lool metti mooy lan nekk ak borom këram muy sa baay loxo jotul ginnaaw mu yor njaayam mu sew bu dee beñeem beñeem la yor moom muy jommam ak ngoram la muy wut ca beñeem boobu suñu borom da ko daan barkeel ndax sa baay rek la ca daan liggéeyal su ko defee boo jógaan rek di ko ci jàppale mu di la yónni ngay daw di indi suukar di indi fariñ xam ne kii la yónni lii muy def ndimbal la ca soxla nga assister sa yaay ba nga xamante ne bii foo daawul xaj ci sa vacance toog ci wetam bu jaayee ba pare yaa ngay daw yóbbu bagaas yi di ko jàppale parce que boobu yaa ngi ko daan woon ne ko yaay man de awma doole waaye dinaa la dimbali ci lii yaa ngay daw di yóbbu bool ya yaa ngay daw di yóbbu pot ya yaa ngi koy jàppale pour xolam neex xale noonu la war a defal waajuram waaye dama gis ne xale yi léegi waajur wi nga xam ne moo gën a sonn sax ay doomam ñoo xaw a gën a doy waar te ñàkk koo assister ña ngay toppandoo koo xam ne waruñoo xool foofu ndax àdduna kenn ku nekk rekk ak fi la suñu borom fàkkal te kenn ku ne fa la suñu borom fàkkal war naa neex ci yow neex goo xamante ne waru mukk bàyyi sa doom mu nekk ci li ko neex ci vacances ndax man lii la ma suñu borom séddee li ma suñu borom seddee maanaam bu ma xëyee lii dina mat lii du mat kon sama doom dama koy teel a oo ci sama wet jàngal ko àddina ci jom ci ngor ci fulla ak fayda ak personnalité ndax xale boo ko yeewee ci yooyu bu nekkee ci ekool ba di jàng dana ci waslu àq bu ñëwee ci kër gi bu wàccee dana waslu àq sa diggante ak moom bu vacances jotee mu xam ne nag dafa war a def ni yaayam takk ndigg dimbali yaayam xale bu mel noonu boo ko dee xool progression wam ci àdduna bu demee ba nekk mag ba taxaw rek da ngay xam ne kii ba mu nekkee xale dañ koo yar ci éducation de base nasaraan bi moo ne éducation de base waaye ci ñun ñii la gën a jekke ndax diiney lislaam seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu jàngale lépp lépp éducation de base la yar ak teggin wax ndànk dox ndànk booy wax ak sa waajur bu la yónnee ba mu lay yónni yéen ñaar rek la nga dellu si fekk gan boo ko nee jàkk mu la ne jàkk war ngaa xam li mu wax nga dellu doxaat ndànk fi ñoo la noonu ba ca néeg ba su ko defee bu waxtaanee ba ca kanam dana am num la fa fekke waaye léegi da ngay xool sa doom sax bu butu xaar ma ci néeg ba tuuti bu toogee ma ngay calculer temps bi boobu ñu koy xaar ci biti la mooy la ma doon wax rek ci wàcc alxuraan wala wàcc ci liñ la yóbbu ci vacances yi au lieu nga ñibbi yaa nga ca àngal ba taxaw ak sa ñaari xarit yaa nga dox ba ca àngal bee taxawaat ak sa ñaari xarit su ko defee loolu mooy indi lu mel noonu waaye boo xamee ne man sama waajur wii ma nekk ci service mu yónni ma fii li tax mu yónni ma fii dafa li lim ma yónni kon lam ma yónni moo war a doon man nii tamit samay yitte ba keroog mu may fekk ci biir néeg bi ndax xale lii rek la mën xale ñaar yi rek la mën dox yónnent ak jàngi école xale loolu rek la mën dox yónnent ak jàngi loolu rek la xale mën xale dox yónnent mooy doxal sa yaay wala doxal sa baay ay service am nekk ci àdduna dox doxinu xale jëf jëfinu xale ñu yebal la ca école ba jàng rekk la war dañ laa inscrire jënd la ay bagages kon da war a jàng rekk yow di indi ay résultats yu favorable yi nga xam ne moom la doom di indil waajuram xolam neex man loolu laa jàpp ne xale loolu rekk la war a mën. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñu ngi siñaale ne émission bi mi ngi jeex waxtu waa ngi jeex ñu di leen jox dig daje ba beneen waxtu ñu leen di jox dig daje ba beneen bés ñu di leen di ñaanal saa su ne ñu leen di fekk ak seen wér jàppandalu àdduna barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jëf